ni ma la ko waxee woon kër gu bees gaa ngi nii hmm. yaa ko gisal sa bopp fii appartement la appartement bu mag baa ngi nii hmm. fii moom tabaxaguma ko nii laa ko bàyyi waaw monsieur Bouba kële moom comme warkat la banaa non non non kooku moom waxuma ay waxam góor a bàyyi naa waxuma ay waxam géral ma kër gi hmm. mi ngi nii utal ay nit di loué di fay weer booy verser normal oh. am na mun na nu am na mu demee sama ma may la benn appartement naan. ah waaw xam nga na ma jaaxala yow xanaa li nga am yëpp ci ay kër nga ko def. moo gën a wóor suuf loo ko jox mu delloo la. dëgg la Cissé. dëgg waaye nag leen rek laa ci xalaat. Mhm. yàlla tere. Ah. tremblement de terre. moom suuf si lox daal. waaw ndax am na sa japon de. yàlla nañ ci yàlla musal fii daal. leen dinaa la ko yëgal. muy dinaa la jig jig goo xam ni. billaahi dinaa la jig ba nga defe ni yàlla na ma yàlla baal yàlla daa dem séminaire ca Mbuur. boo ma jigéen jig sa bopp daal ndax man yàlla def na ni yëwen naa lii du gerte tubaab gerte tubaab la yow tam kër gi lu nee ngi fi mi ngi ginnaaw nee sax jardin nga fa doom baa ngi dee ko soccoo ñun ba ñu amee sunu gerte muy gerte wolof gii tiga dege la bu ko yëy day mel ni tiga dege waaw kooku day fat day fatt wërsëg day fatt ay biir kii yee gerte tubaab ah kii doo ko <laughs> donc moo ko sàngara di piir baay màndi loo gis bu tubaab a ci gën dëgg la da ngay naan déedéet gerte gi laa wax. wala damaa dégg ngay wax nañ waxi sàngara. ah ma ne piir baay mandi piir ba. ah waaye mandi woo. yàlla xam nga mandi moom dangay dangay kii rek changé jikko. <laughs> Eh, eh, eh, di dóoree ko kii. waaw nag monsieur Bouba lenn jaaxal na ma ci yow. Mm. sa dëxawaay bii nga pataar nii dëx gi xanaa américain nga. waaw yàgg naa fa nag. yàgg uh-huh. naa fa uh-huh. waaw ñu dem ma présenté. waaw waaw waaw kon dëgg la

parole woote woote. waaw d'accord am nga droit. reste ici non reste wu ma bul wax. mais les gens se récupèrent. je je m'en fous de cette récupération. mais tey c'est dimanche c'est de repos. c'est quoi beneen jour laa ci yemale. ok damay woote réunion nga fi nga bañ fee bëgg ko nga bañ ko da ngay teew. maintenant fii entreprise la. ah directeur bi di secrétaire bi. di gardien bi di këyit yi di placard bi. waaw defal di gardien bi di lépp. maay décidé ku ma neex dàq ku ma neex dugal. ok waaw waaye bu muy wootee xanaa réunion. oo lan mooy sa problème yow. yow réunion ngay woote. lan mooy sa problème yow man damaa ñëwul ci ay réunion. damay réviser. Ah. yow sonal nga nit ñi ak ay réunion lan la. Ah. doo noppi. Hmm. réviser lan la. damay réviser laa la wax. lan nga ci chaque jour réunion. loo ci doon nit ñee sonn. loo ci doon. xanaa jàngi. et ci jant bëccëg. waa léegi nag ah guddi. noppi man war a wax fayaloo ñu. ah. nit ñi ngay yóbbu ay visite ak di leen réviser par guddi yëg naa ko. ah ban ban coup d'envoi nga jox c'est toi. je ne me tais yow xoolal yaa ngi ñuy tooñ waaye tamit nag. c'est waaye xam nga waaye xam nga problème bi. Ah. man dama luwee ci kër. pour mën a toog am inspiration. Ah. xam nga am toog avec la conscience tranquille man damay def acoustique. xam nga dama soxla inspiration. surtout. Euh, waay ñëw inspiration boo ko bëggee nga dem Prince Art. eh du ma dem Prince Art fii laa koy taj. fii laa ma génne la fan doo ma génne. c'est tout. mais xam nga lu am ba des. Ah. kii fàtte na. wax dëgg yàlla. dégg nga maa ngi bëgg bëri morom ñi. bukki na ku ko dénk almet moom. Ah. tooñ nga nit ña. voilà dénkoon nañ ci beneen bukki al ay ciel mu cieloo ko. prison xam nga la ngeen def dajale wërsëgu jàmbur gi ni ko tàndiix noppi. yaa nga prison noppi ak yow ah cam doom génn leen néeg gi ay naka lay yàlla ci li ngay def man sage femme laa dimanche rek laa am pour repos ngay ñëw di yeewee nii na nga naan dimanche laa am pour awootele noppi doomi jàmbur yi ngay def ci canal yeeg pax yi waxal loo xam espèce de avortement précoce. avortement li ngeen di raay ak lépp dafa yow tu nous as mer. Ah, ah, mais mais mais moom moo ñu. merci nit ñi dañuy dem ay dëkk ak dëkk sonn. merci ah yow dañuy fay. ah mayoo ñu. ah mais mais njaboot la sonnal nga ñu. Ah. dina leer. lan la. dina leer xam nga xew. mu ngi mel ni daf nga mboose nii dina leer. bàyyi sa xas yow ñu dem xool ngeen wax. ñu ko bàyyi wax li mu bëgg a wax. sama kaw te xam bu baax li may woo hmm. maa leen woolu woon ngeen baal ma jéggal ma am article bu fi waddee dinaa ko lire ci français lii ko ci olof ku ne xam sa bopp ci biir kër gi appeler la thématique de la lobule de la dématérialisation de des préambules le projet de la loi tirant sur les objectifs de détournements des deniers publics ont été conçus et étudiés, paramétrés, bien maîtrisés, distancés et des décisions irréculables de l'autre maison de la détournement de Satch. Il a été conçu et détourné, appliqué automatiquement bu jam dellu gannaaw ah mooy waaw looy la daal saa waay da ngaa wax ci wolof leen li may wax waxal ci wolof rek moo gën a gaaw dofu leew xam ngeen allez article dugg ci kër ci buntu kër nga yaw waaw kuy génn ca buntu ba nga yaw buntu gi kenn dootu fi dugg à partir de 23h kenn dootu fi génn à partir de 23h. ah c'est tout eh, eh, eh, arrêté d'accord man damay def studio. ah merci damay guddee. waaw ah. ok. man sage femme laa à tout moment laay wàcc du ma wàcc 11 yaa waral 11h gi ndax dégg nga ma am ñi nga yàq seen biir heure yooyu la ñuy ñëw. avorteuse nga. Ah, yow waxal loo xam. waaye xoolal yow da nga man sama wax du ci sori. je suis un de loi. je suis appelé à sortir à n'importe quelle heure et à retourner à n'importe quelle heure euh, monsieur Gaboulé oui damaa bëgg nga déglu ma allez-y da ngay ramasse oui dama ramasse ngeen ramasse ci biir kër gi eh ah, c'est tout article deux kër gi jigéen dootu fi dugg góor dootu fi dugg c'est valable pour ñu amul jëkkër c'est valable pour ñu amul jabar c'est tout i ah. da nga d'accord d'accord ah, nam ma nga d'accord nam yaa nga prision baax na dana am keneen koy ràng. ñi amul jëkkër nga ni. yoo doo leen duggal dara. mais yow mais yow mais yow lii c'est la dictature. l'appel dictateur nga. article trois. waaw la douce. mais da ko bokk ak mbóot. les toilettes. douce ci toilettes ndox. toilettes yi. saw fukki dërëm tuur dugub cent franc. dugub <laughs> eh cent franc. waaw li ci desoon. ku sa biir di daw nag. ku sa biir bi daw nga jënd forfait bi. cinq mille la par mois. forfait bloqué mais bu fekkee ne da ngaa da ngaa da boo seere nga wut lu la laasee gobule. sump dina laase orange dina laase kaani dina laase ak ak pompe bi pompe. nga ñëw. article ah, 4. noppi leen. ok noppi leen. dama wax ba pare allez-y. jonctionnement des chambres xam ngeen saa su ma neexee ngeen ci néeg bi dem tranché marché ci beneen néeg. changé néeg maanaam Gamboule mën ngaa changé siitu mi. Eh, changé wu ba kii non yow yow étudiante changé euh, kële euh, prison. yow géej nga changé kii mi di. mais mais mais loolu mais mais loolu c'est de la transhumance. mais loolu transhumance la. ku nekk da génn sa néeg di changé ay néeg. Ah, te ay ah, aw waaye ah, ndaw Samba waaw chaque weer dañuy changé ay néeg. loolu esclave. waaw damaa bëgg néeg yi am am am am lucidité. waaw man de defal ndaaj yéen ba léegi waxuma. yéen te article am yi mu teg ba bàyyi da ngeen ko nangu. Eh, nit ñi nanguwuñu ko. article yi na bu des. kay loolu la doon laaj la ñuy def. Eh, c'est tout. article 5. waaw très bien. daa am way woo xam ne faw ngeen mën ko. buuba buuba bu ba di uso. dama ne waxuñu ay waxi buuba bu ñu kenn buubal dama ne. moom moo fi newoon. kër gi entreprise la te moom mooy président directeur général. waaw waaw lii xanaa dictature la. xanaa kay booy wote sa budget. waaw nga war a xaar ba assemblée bi d'accord. bëgg jël bëggul door. Oh, ah moo petit ourson man la jox kër gi. Oh. il fait la loi et l'admiration de ta famille. Oh, buuba buuba attendez attendez attendez. man dem naa sama yoon. ma ci wane saa bopp jeexit yi ngeen xam ne man ngeen ko digaalee ngeen xam ne maay koloj de cum oh, oh, oh, oh! fépp forfait bi bu dee da ngaa seere nag nga jënd forfait cinq mille la par mois Åh! Vaatimat vielä kullat. Seuraava. La biscuit à être recommandée pour un institutif. Très bien. Qui ont, ont puisé de la euh, le docteur ah. a été examiné et régulièrement opéré ah. et du prise de sang. Ah.